waaw nu mu demee noonu fu rapport bi jógee. ah mais mais mais Pa Moussa euh, recours yi mel ni comme euh, vraiment ñu ngi mel ni comme ñu ku nekk marché lundi euh, finalement daaw Pa Moussa est-ce que mën nañu wax ne ñu ngi dem ci ay élections yu sérieuses Pa Moussa. waaw waaw waaw balaa maa dem ci loolu MI cette production moom mu ngi naan je respecte pas l'agenda mais grave loolu après dinaa ci tontu bu ma ñëwee lundi lundi. non non dëgg la tey da nga waroon ñëw mercredi bi da nga waxoon ñëw nga toog foofu xam nga ni fu mu toll nii nii yow yow yow nelawoo defoo dara xam nga yow da nga ne mënoo jóg fajar mënoon nga ñëw liggéey si. na mel ni maa ngi ci biir rek. wala waaw waaw. mais mais mais xam nga xam nga ñàpp. conseil constitutionnel. en fait recours yi ak nu mu munti toll parce que bizarrement on a un nombre plus élevé de recours que de candidats recours yi ñoo ëpp candidats yi. Mhm. parce que euh, da ngay gis ben candidat bu ñëw déposer ñetti recours. Mhm. donc euh, euh, le code électoral il est clair le conseil constitutionnel a am obligation de statuer sans délai Si li nga xamante ne déposer ci mhm. en terme de recours alors donc tey Lolo, lolu euh le vin. parce que nous, ñoo un agenda le vin mais rien ne les impose de d'aller jusqu'au 20 ou de dépasser le 20 dara imposer au euh, le mais quand quand est déroulé normalement moi mm-hmm. je suis surpris quand je vois des candidats sortir et prôner euh, euh, un report des élections par exemple j'ai entendu le candidat Alpha Tcham, je pense dire que ni élection yi conditions yi élection mënu fait am nañ ko mais après ça, ça devient un peu un peu suspect euh, venant de ces candidats-là, de dire euh, c'était quoi la finalité de leur participation. Parce que bu yow da pour participer ci élection euh, recours rek tax nous ne nañu nañu nañu reporter man en tout cas jusque là le respect du calendrier électoral est un impératif parce que si station yi ñu c'est encore la faute de l'administration parce que nous mënoo mënoo mënoo jox nit ñi yow nit ki laalul clé bi yow nga ñëwaat ne ko clé bi c'est pas exploitable loolu mooy lan. mais euh, Pa Moussa. waaw euh, si beneen bi ma euh, bëgg a dem mooy la cas de Ba bi nga xam ne dafa dugal ay recours surtout si candidat yu mel ni Bassirou Diomaye Faye Cheikh Tidiane Dièye Boun Abdallah Dionne. Ah, c'est sûr que ni ñooñu la def recours. bon euh, euh, euh, le quotidien ñetti journaux wax nañ ci. le quotidien ma jambal moom la moom la andi. nee na nee na Cheikh Tidiane Dieye la. Bassirou Diomaye ak Boun Abdallah. bon parce que parce que ñoom déjà man li ma njëkk a li ma njëkk a frappé celui qui dépose le recours ce n'est ni le candidat ni son mandataire. Mhm. bon. kooku yoon lan la wax foofu ba pare Pa Moussa. non non non il n'a pas qualité à agir loolu moom c'est clair soit c'est le candidat. soit c'est le mandataire sauf maintenant euh, sous des dañ de procuration mais euh, en tout cas en tant que avocat du candidat il existé où. Bon, voilà sax Ousmane Sonko pour que son avocat puisse le représenter là-bas il ko que def mandataire pour le monde ko représenter sinon en tant que avocat ce que c'est? maître Bambassissé ne peut pas se présenter là-bas pour dire que je suis avocat d'Ousmane Sonko qu'on maay déposé le bi donc fofu noonu loolu lañuy wax fin de non recevoir manam man togn na njàpp yow nga porter ma plainte lu sa lu la ci amo qualité pour agir donc loolu boko yobé ci yone yone dalay def lu wax fin de non recevoir manam yow mi agir waro agir man njàpp la togn tooñu mala yow nga ne yow yaa may porté plainte alors donc loolu mom motax candidat bi di choisir un mandataire bo xamné da koy jox mandat d'agir à son nom et pour son compte mais maître Amadou Sall n'a pas de mandat en tant que en tant que candidat ou Amadou Ba donc faut vrai que c'est problématique bon maintenant euh, il faut justifier d'une procuration Il faut venir avec une na procuration parce que nous sommes en pleine euh, tournée de je ne campagne électorale déguisée en hum. masse. Hum. c'est ça la réalité alors donc maintenant y a un candidat bu nekk mu mën a attaquer une candidature article L127 du code électoral hum. euh, réclamation la réclamation est ouverte à tout candidat alors donc kon euh, da nga koy teg rek sur la base sérieuse parce que loolu moom mooy lay Thierno Alassane Sall def à l'encontre de Karim Wade euh, Karim vu que ni tontu na bu dee tontu na xëy na conseil constitutionnel ñoo ne ko tontul mais moom mënul tontul boppam parce que les procédures devant le conseil constitutionnel ne sont pas contradictoires Mais par rapport à Karim Wade, cher euh, Baralma, Moussa, Moussa c'est pas Moussa, c'est juste pour vous relancer. Euh, Demba Clédor, euh, mom euh, walum binationalité lay wa parce que binational mo nek ko xamné euh voilà dafa am nationalité mais de façon naturelle mom yaayam française là Donc du coup par walum double nationalité len inscrit ci li nga xamné mo nek code électoral mu ngi xamné par rapport à binationalité Karim Wade mënu ko euh téré mu bokku li nga xamné mo élection loolu loo si wax en tant que koo xam ne xam-xamam màcc na ci wàllum droit. gis nga constitution bi muy wax ak code électoral. Mhm. dañu ne nga nekk exclusivement de nationalité sénégalaise. exclusivement. Mhm. léegi yow bi national est-ce qu'il est exclusivement sénégalais. non non. bi national ak double national yëpp c'est la même chose c'est-à-dire li ñuy bañ mooy nga am ñaari nationalité ak noo ko mënti amee loolu la ñuy bañ dañu bëgg nga doon exclusivement sénégalais bi national bi il est pas exclusivement sénégalais il bii national ak double national ñoom ñooy bokk même traitement ci cas bii nii li ñu bëgg mooy benn nationalité képp cote dong moom nga war a am parce que loolu c'est c'est c'est compréhensible d'autant plus que tey jii nii euh, je dis n'importe quoi euh, Daouda Digal moom mooy suñu président de la République alors que moom am na nationalité américaine kon moom suñu président beneen président daf ko yilif parce que euh, Joe Biden sa président lay doon mm-hmm. yow nga nekk président wu réew ba pare nekk le un ce président. Mhm. du cohérent du am du am du devant son président. surtout en parce que euh, exemple rek ah, euh, bu bu y a c'est hasard bu ñu candidat nationalité guinéenne donc Amadou Ba Mamadi président Hmm? exemple rek laa joxe ah bu bu bu tombee rek. man maa xam ne maa gën a xam joxe woo exemple da ngay noonu. waaw saa yeggaleel. mais mais mais léegi léegi day day poser conflit d'intérêt entre bu bu amee ci frontière bi benn benn benn benn benn gisement de pétrole. Uh-huh. ñu war ko séddoo ñun ak Guinée léegi ñun suñu président bi euh, président Guinée tamit président om la mais kay am conflit d'intérêt loolu moom moo tax constitution. exiger l'exclusivité de la nationalité sénégalaise l'exclusivité léegi d'ailleurs euh, Karim Wade li mu tontoo moom waxul ne amul euh, waxul ne amul moo ko daf ne ci mhm. comme que Karim Wade xam na ne bi ak double national rek la ñuy bañ mhm. lan bu doon loolu lan moo muy renoncé pourquoi bu doon code électoral wala constitution bañul bi national lan moo tax muy renoncé loolu rek lu ne fàng la lu kenn mënut a donc kon exclusivité de la nationalité sénégalaise lañ soxla mm bon maintenant nous Alassane Sall euh, attaqué na loolu. Hmm. nous dafa dafa ne foofu ci pour nous pour nous comprendre il y a combien de candidats 21. conséquentiel un. Hmm. conseil constitutionnel wër ci candidat bu toutes les nationalités du monde xool ndax pas nationalités. nationalité. Hmm. mënul ñëw jël il n'est pas il n'est pas malien il n'est pas éthiopien il n'est pas français ba nation yëpp jeex dafa mën lool fii ko. c'est vrai. la déclaration sur l'honneur dangay def une déclaration sur l'honneur vous allez est exclusivement de nationalité sénégalaise ñu jappé la présomption de bonne foi hmm. avez peine le candidat pour ko c'est ce candidat contestataire là qui doit prouver l'existence de la euh, double nationalité donc si c'est Alassane Sall qui conteste l'exclusivité de la nationalité sénégalaise de Karim Wade c'est à lui de prouver l'existence hmm. mais ce n'est pas à Karim Wade de prouver qu'il est exclusivement sénégalais hmm. ki jàpp ne am nga beneen nationalité kooku moom mooy am la preuve de cette autre nationalité là. Mm-hmm. moo tax Thierno Alassane euh, la mu yor ca ca ay firnde de na jébbal ko conseil constitutionnel conseil constitutionnel bu ko càmbaree xam ne kii li mu wax dëgg la day invalider la candidature de Karim Wade. Mm-hmm. bu dee daf ko càmbar xam ne lii am na lu ci lënt mën na laaj Karim Wade euh, preuve renonciation. Mm-hmm. tant qu'il n'a pas la preuve de la renonciation parce que qu'il tamit dafa am solo mm-hmm. la façon dont Karim Wade peut acquérir la nationalité française mm-hmm. possibilité de renonciation avant 19 ans foofu le problème bi nekk ah, ah, ah, renonciation bu ça. tamit décret au président bi moom publié publier au journal officiel donc dafa am ñaar yu am yu problématique mhm. mooy Karim Wade dafa dépassé fi mu war a renoncer te loolu maître Moussa Diop am na lu bëri lu mu ci euh, développé woon hmm. te boo ko renoncé wi dañ koy yóbbu ci euh, journal officiel par décret du président mhm. loolu la Thierno Alassane ne seet na ko gisu ko ci décret c'est vrai alors donc

firndeeg dénonciation bi mais man ci postam bi ma gis que j'ai repris sur Facebook il n'a pas donné de joxewul joxewul kii joxewul firnde. mais euh, Pape Moussa. waaw dama ñëw si le cas de Bokk Yaakaar dans le norme mandataire bi la war a doon ak. Euh,